parrainage bokk na ci li indi lënt-lënt ci joŋante palum njiitu réew mii tax na ba acteur politique yi xalaat ne dañ ko fi war a jëlee ginnaaw ay waxtaan opposition pouvoir ak non aligné ñëpp déggoo ngir rekk dàkkal parenage ci élection locale yi di ñëw. mujj nañu déggoo ci ne élection locale yi parrainage du ci am loolu nag mu ngi juddoo ci bi nga xamee ne dem nañu ba jàpp ne. am na ay points yu am solo yoo xam ne déggooguñ ci war nañ cee def ay jéego dañoo formé woon benn lu ñuy tudd commission interpôle liggante ñetti pôle yi pôle bu nekk joxe ñaari nit ñu daje tomb yi nga xam ne tomb yu am solo nga xam ne waxtaanu nañ ci jubóowuñu ci ñu càmbaraat ko xool yan lañ ci mën a euh, am ay jéego yu ku nekk di def ci kaw loolu la ñu euh, dem ba euh, wax majorité bi ne. su fekkee ne bëgg nañu tomb yi nga xam ne dañ ci am consensus bëri il faut que ñoom ci wàllu parrainage bi ñu def ci concession bu ko defee nun ci wàllu euh, adjoint au maire yi euh, ñu def ci concession euh, ensuite commission nationale d'observation de la démocratie bi nga xam ne proposé woon nañu ko nun waa Pôle des proposé woon nañu ko aussi ñu nangu ko donc muy ay acquis yu am solo yoo xam ne euh, yaakaar naa ne dana dimbale démocratie sénégalaise ndax bu ñu supprimer parrainage bi coow lu bëree bëri danañ ko euh, fànq. dogal boobu ñu jël muy jéego bu am solo bu ñëpp di rafetlu la ndax rek dina saafara lu bëri. risque bi amoon moy nga wax ko ba pare dugal ko ci loi bi bu ñu ba war ko taxawal mu indi ay coono indi ay fitna. parce que nag comme ay wot la rek mënoo sóoral ne lo mën def pour mu am jàmm que sénégalais votel ki nga xam bëgg loolu dañ koy def ci tànk yooyu daal la dox motax ñu ne nañ ko dindi euh, bi pré ñu dindi ko ci élection locale yi bu dé ci présidentielle bi ñu xaar ba résultat euh, càmbar gi ñëw. et je pense que lolu képp ku ko dégg war ko mën a saluer ndaxte képp kuy acteur politique xam te ne war nga xam ni lolu doon na jafe lool élection locale yi ñu jëm. parrainage bi donte bokk ci li mëna a gàllankoor élection locale yi di ñëw wante yenen poñ tamit des na waxtane le rek ngir gën a dëgëral démocratie. amna point yu bare yi nga xamni ni ñoo nekk ci dialogue politique bi te point yooyu amul benn bu ci ñak importance ñepp am importance parce que liñ ci tax jog moy am une meilleure démocratie am une meilleure organisation des élections élections yu mucc ayib donc moo tax am na yeneen ak yeneeni point yi nga xam ni buñ ci amee accord mu ñëw dolli delloose ko ci lii nga xam ni tey moom la. moom la ñu am accord dina tax ñu am ay élection yu mucc ayib nga xam ne heure bu ñu ci génnee rek ku nekk da ngay dem sa yoon. caution bi nga xam ne daawul woon am ci élection locale ba tey mu nga fa dindiwuñ ko ci waxtaan bi dinañ ci peut-être dellusiwaat wax tuuti caution mais euh, gëm naa ne filtre boobu nañ ko bàyyi parce que li ñu xewoon fii ci élection deux mille euh, deux mille quatorze yi nga xam ne li nga am ci ay liste ëpp na ñaari junni ak ba lu teg. ba mu indi sa mboxloo bi nga xam ne vraiment dafay lëndëmaloon sax démocratie bi loolu war na mën a loolu moo tax filtre boobu du ñu ko dindi dinañ ko waxtaane parce que déjà ci loi bi Euh, joxe caution mu ngi ci maintenant ñaata lay doon ak luñ koy défé lolu buñu waxtané paré lañ koy génne surtout ministère de l'Intérieur. bu élection yi déssé ay fan bu mo juumul ci code électoral bi 150 jours lay consulter acteurs politiques yi après soga a arrêté buy fixer caution bi donc lolu filtre boobu gëmuma mu deñ parce que nak il faut mu am filtre pour que deug deug ñi voté xam ñu ñuy votel te mën a fal ñi nga xam ne dinañ mën a yor euh, gox yeeg goxaan yi vraiment pour def fa liggéey bu baax. ensuite bu ñu créer benn observatoire de la démocratie dina tax jafe-jafe yi am ci diggante acteur politiques yi. Euh, diggante élection ak bu élection jàlle jafe-jafe yooyu fu ñu mën fu ñu toll à tout instant dinañ am kuréel bu koy saytu ba nga xam ne coow lu bëree bëri ak ay jafe-jafe yu bëri bëri ci wàllu politique danañ ko mën a moytu. parrainage bi ñu dindi tax na ba ñenn ci acteurs politiques yi di am yaakaar ne rek dina tax ñu sàmmonteel ak calendrier jongante yi dem bay ne dinañu mën a amal élection locale yi ci mars 2021